murtajan minnatun lana jariun asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy déglu te dinu seetaan ñu dellusiwaat seen jataay bi ñu tuddee madinatu ilmi ñu di ko amalee ci seen sit bi ñuy wax 24actu ginnaaw bu nu sante mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan di ñu déglu ak ñi nga xam ne ñu ngi ci réew mi ak ci bitim réew ñu ngi ñaan yàlla defal leen jàmm te defal na ko di sant mbokk yi nga xam ne ñu ngi site bi ah, ñi nga xam ne tamit ñoo ni seetaan ñu jéem a abonné bu baax ndax ñu gën a euh, def sunu vidéo yi nga xam ne dañ koy amal képp ku ci bëgg a jot nga mën cee jot bi ci des tamit képp koo xamante ni bëgg ngaa jàpp ci émission bi wala nga bëgg siiwal sam jaay tamit boo contacté ñi nga xam ne ñoo nekk ci euh, fi nga xam ne moo di site bi da ngeen mën a ànd ak moom incha allah Euh, dina leen indil numéro yi nga xam ne incha allah rabbi ku bëgg a contacter ñi nga xam ne ñoo nekk ci site bi ak bëgg a siiwal sam njaay di nga leen mën a jot ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp. kon te di ñaanal bu baax soxna maam xari Mbàkke Murtada di ñaan yàlla sàmm ko te wéral ko di sunu xarit di sunu sëriñ di siyaara bu baax a baax soxna moomi Kebe euh, moom alxaaji ci li moom alxaaji Njuga Kebe ñu ngi koy ñaanal fan nu gudd ak wér liggéey bi muy def ci lislaam yàlla na ko yàlla àggale te may ko fan wu Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké xam ngeen fan yi ñu jàll yeesalaat na tere yi nga xam ne suñu boroom daf koo tere yonante bi salaa salaam tere ko sëñ Tuubaa bañ ko sëñ Abdu Laat mi nga xam ne mooy waajuram aaye woon ko fi loola nag wax na ko ci waxin woo xamante ni jàpp naa ne ñëpp dégg nañ ko rawatina ñi nekk ci dëkk bi tudd na yu bare bari yoo xamante ni yu mu wax la ne bëgg nañu bàyyi ko <clears throat> ci dëkk bi loolu nag yàgg na ko wax bu baax a baax loolu jàpp naa ne ñun ñëpp dégg nañ ko tey ay taalibe ginnaaw ñun nag danoo jaayante woon ak sëriñ bi wax ne sëriñ bi loonu digal ñu def loonu tere ñu bàyyi wax ko ci waxin woo xamante ni sunu teeyu bakkan la jëbal nañ la sunu bopp àdduna ak alaaxira muy baat yoo xamante ni kenn forcé ci kenn kenn gaw ko kenn yaa dikk ba seet ne loo war a def la nga def ko loolu nag jàpp naa ne ku ko defante woon ak koo xamante nii sax amul fenn fu mu la féete yaa xool sa sagoy bopp def ko rek war ngaa contrat boobu nga jéem koo rapide nga jëm koo compérir nga jéem koo xaw ma nu koy waxee waaye nga jéem ci contrat boobu nga jëm koo dëggal rawatina bi nga ko waxee ki nga ko wax nag mu jiitale ci yoonu lislaam jiitale ci tarixa bi nga xam ne mooy tarixu seexul xadim bokk na ci tere yi jàpp naa ne tere nañ fi yu bari mooy xeesal ak mees te yooyu yépp lislaam daf ko aay moom yooyu moom lislaam daf ci yonente bi salaa salaam nee na yàlla rëbb na koo xamante nii mu ngi meesu yokk kawaram ak ko koy yokkal yooyu nag ñu teg ko ci loxol safinatul amaan ñuy siyaara baax sëriñ Muhammadu Lo Ngaabu tere yooyu nag nit ñi leen war a jàpp ci seen bopp ak jàpp ne safinatul amaan ak sàndarma yi ak lépp ndax lii bi ko sëriñ bi di wax président bi nga xam ne moo jiite réew mi ànd ak ñenn ci ministre am ñoo toog loola jàpp naa ne wala bal na ci lépp sëriñ bi woo na ki nga xam ne moo jiite ci wàllu àdduna bi mu woo ko moom mi nga xam ne moo jiite ci diine ji mu woo ko jiite ci tarixa murit woo ko wax ak moom loolu jàpp naa ne lu leer naññi la loolu nag ku ci nekk da ngaa war a jàpp ne yow yaa war a doon sa pëlis sa bopp yaa war a doon sa safinatul amaan nga ragal yàlla ba xam seet li la sëriñ bi aaye ndax intérêt boppam dong dong dong la wala sa intérêt la la bëggal wala lu baax la la bëggal wala lum la bëggal nga seet ko jàpp naa ne ku ko seet vérifié ko ba ñëw xam na sëriñ bi waxam jam daan wax ne li ma yéene sama bopp dong laa leen yéene loolu moo firnde mbir nag suñ ko yëkkatee lay tax du mën a dëgg-dëgg leen ca bëgg ku nekk jàpp ne <coughs> yow taxoo ñuy wax walla yow ci sa bopp nga jàpp ne sëriñ bi ginnaaw moom li ko waroon def na ko man sama waru gar mooy euh, mooy man sama waru gar mooy damay xool ba xam ñi aaye ba xam nit ñi bàyyi nan wala bàyyiwun am na ñoo xam ne bàyyee damay bàyyi suñ bàyyiwun nag du ma bàyyi déedéet sëriñ bi moom la muy aaye sëriñ Mouhamadou Lo bu mi waxaat ko ne ko sunu kër yi lañ ko war a njëkkee loolu dëgg la ku ci nekk looy aaye ci sa kër nga ko war a njëkkee kon sëriñ bi Touba kër la ci këram la njëkk a aaye ne nan bàyyi feneen fu waaye mën a nekk te di taalibe nag te aju ci te déglu ndigalu sëriñ bi kon loolu day mel ni tàbbi na ci yow du ki nekk Touba rek lan aaye lu bon waaye ka nekk Ndakaaru mën na koo def wala ka nekk Kaolack wala fu waay mën a nekk tey déglu kilifa kàddu sëriñ bi xamal na aaye na la loolu bàyyi gi nag du caagee nag forcé la goo xamante ni forcé ku ko bàyyiwul dañ lay dóor dañ lay rey dañ lay nàngam loolu moom mbir mi àggewut noonu du àgg foofu sëriñ bi daal fàttali na ndigali borom bi tere na ko mu ngi sàmm ab dëkkam ngir bañ ñu def ko fa xañ na du ñàkk ay sanction yun ca teg ak ki nàngam yooyu tamit ñan koy jox mooy boroomi xam-xam ak boroomi xel mbir ñu mel noonu mbiru aaye ak tere ak digle loolu boroomi xam-xam ñoo te yàlla kat yim nu aaye yëpp buñ xoolee dañuy xool ne benn intérêt mu nekku ci sunu intérêt la lim nu digal lépp lu baax la te sunu intérêt la kon dañ ko war a def na ko diglee ñu jéem ko jéem mooy am pas-pasu bàyyi ko ak xam ne amalu la benn solo mooy mees mi ngay léttoo mees moo xam ne xamoo ab tubaab bu dof moo ko moomoon ñu wat ko dikk defar ko déglu ko wala liñ lay jox sëwa naturel bi ñu lay jox ndax du aw fas moo ko doon moom lañ ko dagge ci geenu fas wala tubaab bu màggat boo xamante ni wala tubaab bu faatu boo xamante ni ñu dindi karaw gi indil leen ko te boo delluwaatoon ci baatu tubaab bi sëwa naturel wax yàlla da ngay xam ne baat bi sax dañ cee juum nit ñi niñ leen di nax ndax naturel mooy li sa karaw gi nekk ci sa bopp gi nga xam ne mooy sa karaw loolu mooy naturel gi la yàlla saxal waaye sëwa naturel moom du naturelul moom lu la indi la formé déformé la ko defal la ko nga ko yanu ko loo xamante ne lu seer nga koy jënde boo noppee amaat ci bàkkaar def naa ne dara jëru ko ndax am na waykat bu nu wax laa xayrun xayrun baxdoo naaru wala sarrin bi sarrin baxdoo jannat bànneex boo xamante ni da nga koy am te bànneex boobu bu jeexee la cay mujj mooy sawara lool du bànneex waaye coono boo mën a am ak natt boo mën a am te natt booba saa bu jeexee àjjana rek ngay waxu dugg loolu du natt loolu ngëneel la nit ñi nag nan seetaat bu baax war ma war a jox dëkk bi ak sutura sin ci war a ëmb ak ndigalu sëriñ bi nu booleeg sëriñ bi bu fekkee nag àgg nañ ci sëriñ bi mënunoo digal ñu bàyyi mënunoo tere ñu ñu bàyyi ko mënunoo digal ñu def ko mënunoo tere ñu bàyyi ko topp gi nag moom jëriñatul dara ndax sameex naa waa ateex naa rek saxaba yi moom ni nu ànde woon ak yonante bi mooy lu mu leen digal ñu def ko lu mu leen tere ñu bàyyi ko xam ngeen ne ñoom ni nu gëme woon yàlla xoolal am na ci saxaaba buy nettali boo xam ne nee na man ki koy nettali nee na saxaaba boobu nee na da doon céetal nee bi mu céetalee ba fanaan ak soxnaam ci guddi googu nee na suba teel la dégg ñu naa ñëw leen ci jihaad ji ñëw leen ci jihaad ji nee na bi muy ñëw ci jihaad ji nee na booba sanguwul sax sangu farata bi mu war a def sa sangu daa dikk rek ñëw leen mu jël jaasim ne pëccet dem te kooka fi mu toll bi mu demee nee na ci xare bi lañ ko raxe ci xare bi xam nga ne kuy céetal wàcce sab séet ngeen fanaan guddi ga bët ba jotagul sax nga dégg naa ñëw leen ci xare bi nga bàyyi fa soxna si dem ndax loolu ñun ñi lislaam jaral nanu ko wala sëriñ bi jaral nanu ko bu nu ko sëriñ bi jaralee faaw ñu àgg foofu saxaba yi aboon te sëñ Tuubaa da wax ne yéen saxaba yi ñooy seen bàyyi ci lislaam kon nan roy saxaba yi saxaba yi di ñaari ñaari vision dong lan amoon ci lislaam mooy yonent bi salaa salaam am li mu bëgg walla ñoom ñu dem xare ñu rey leen lislaam mën a fitti waaye ñoo amul woon beneen programme ñun nag loolu moo nu war a itteel ndigalu sëriñ bi am yoonu murit àgg fi sëriñ bi bëggoon ñu am ndam bu nu taseeg ëllëg yemal xiyaam sëriñ bi du nu waaye nii de ku ko nekkee ak jàpp ne nii nga nekkee ak tawféex la ci yow wala bànneex la wala ndam la ci yow boo taseeg sëriñ bi di nga xam ne dara jëru ko woon dara dara dara dara jëru ko sëriñ bi dara lu sellut du ko recevoir du ànd ak moom sëriñ bi lu lewut du ko jël donte yaa ngi ko teg ci loxol sëriñ bi wane ne danga nga ko teg ci loxol sëriñ bi te lewut yaa xam fa nga ko jëlee yaa xam ni nga def ba am ko waaye sëriñ bi du amu ci soxla sëriñ bi lu lewut amu ci soxla lu sellut amu ci soxla sëriñ bi lu baax la bëgg kon ñun ñi ànd ak moom yëg ne am na feebar bu dal ci ñun feebar boobu di feebarum ñàkk a jub ñàkk a ci yoonu siraatal mustaqim gis ku nu gën a tege ci yoon wi ñu jox ko sunu bopp ànd ak moom jàpp naa ne lu mu nu digal dañ ko war a bàyyi lu mu nu tere ñu bàyyi ko nit nag mënul ne day faju ba noppi nag ordonnance bi ko docteur bi jox mu ne du ko jël loolu moom mooy mooy du wér te la koy mooy ca feebar mooy feebar bi da koy dem ba gañe ko rey soog koo rey feebar néew na mu rey la rek tàmbali la rey la déedéet feebar bi day nekk ba jekku la ba yóbbu yóbbu say cër yóbbu sa lépp soog laa rey kon nag ñun leen war mooy jéem a dégg ndigalul Seex Muhammadul Muntaxa tax nii mu def wane na ne mat na kilifa wane na nu lislaam bi mooy moo nekk ci bopp bi wane na ne li Sëriñ Tuubaa bëggoon lépp la bëgg waaye lim bañoon la bañ sëñ Sëriñ Tuubaa day dafa waxoon ne axsamtu billaahi indi li nabi abadan xillun wahibun wama abaahu ya baahu gis naa giñ naa ne yonante bi salaa salaam mooy sama xarit mooy sama soppe lu mu bëgg loolu la bëgg lu mu bañ laa ñun nu nu mën a bëggee sëñ tubaa ba noppi li sëriñ bi bëgg bëggunu ko loolu mënta nekk sax mënul nekk bëgg naa sëñ tubaa te la sëriñ tubaa bëggoon kenn mësu la caa gis duñ la gis nga dox ca duñ la gis nga jaar ca li sëriñ tubaab bañoon lépp yaa ngi ci wetam di ko def sëñ tubaa ba nit dikkee di di toog di muslu seytaane mu ne ko déedéet loolu musalu la ci da ngay dem fa mus gente nga sanc fa maanaam fa seytaane jóge waaye bëgg a nekk fi seytaane nekk ba noppi di ko muslu loolu mënul nekk te ñun de buñ dee e gor xoolaat suñu digganteeg sëñ Tuubaa ci taraanga ji nga xam ne defal nañu ko ci dëkk bi ak kaaraange waroon nañ ko faye leneen lu bokkut ak nag nekk nuur ci li nga xam ne nag mosu koo bëgg guddi mosu koo bëgg bëccëg ñu nekk ci rek jéemu noo yar sunu bopp noo yar sunu njaboot jéemunoo toppul bànneex yi nga xam ne lum nuy jural dara te sëñ Tuubaa lu ko waaye mën a jege jege jege te nekk ci li ñuy tere xamal ne jege woo sëriñ bi yow yaa ko tuddoo jege waaye sëriñ bi sori na la sëriñ bi lu baax dong la jege ku gën a jege lu baax yaa ko gën a jege ku gën a jege lu baax rek yaa gën a jege sëriñ bi yaa ko gën a jege ci mbokk yaa ko gën a jege ci deret ndax sëriñ bi lool rek la am lu baax rek la am kon ku nekk ci lu baax yëgal ne yaay mbokkum sëriñ bi yaa nekk ci li sëriñ waaye ak loo ko mën a jege jege te nekkoo ci nekkoo ci li ndax sëriñ bi dafa sell am na fu sëñ Moussa wax na sere euh, mu ànd ak saara yendu caawa ndaw jaxasoo bamba rafet ak caawa bamba moo ak caawa la rafet waaye ñi rafetul caawa mooy sere mu ànd ak saara du caawa ndaw jaxasoo bamba rafet ak caawa kon wax nañu fi sëriñ Tuubaa nekkoon góor ñeeg jigéen ñi jaxasoo di caaxaan làmb yi gor sabar yépp caaxaan kenn amatul xastu li wàcc laay kaa nga ki fóore faf di jaane laay lislaam di jooy yëkkat ba génn gàddaay ci sawu jant fépp mel ni làmbaay Seex Bamba ñaan ci barkeb jiili ne yàlla may safiyu kulli jiili may xaadim rasooli fi sudaani may ramm xarni anir niiraani lisaanu al daa di waxanteeg Bamba te saaru yuuso mu teeñu yan ba bambaana may na ma dalab lislaam saf leen ma jóor leen ma dinaa ko jaam ku mel nii nag ku ko am muy sa kilifa di sa royukaay sanc dëkk boo xamante dëkk bu sell la tudde tuubaa dëkk bi daal ne arasaxallaahu tuubaa aaral la ko ci côté ñoŋal la ko ci côté bu nekk xéewal gu baax lu baax lu nekk ñu indi la ko lu nawet bi sax lu ñor lu nekk la bala ko waa ña ko doon bayee ñam dan na nañ ko yóbbu Tuubaa lu baax lu nekk bitim réew ñu ne nañ ko yóbbu Tuubaa yóbbu la ko yow fi nga nekk dara mën ngaa bere déplacé wu lu baax lu nekk te dagan yaa koy njëkk a ñam yaa koy ëppale ña ko ña ko ña ko bayoon wala ña ko yoon wala nanga lu xemmem lu rafet lu nekk ñu ne nañ ko indi te loolu sëñ tubaa rek defal la ko nga mën a nekk ci dëkk bi xalifa sëñ tubaa aaye mbir sàngam jéemoo ca dara fu amoo pas-pasu bàyyi ko sax lu dut bàyyi gi nga koy bàyyi de bu fekkee ne aaye bi ko sëriñ bi aaye ak ñi koy tere bañ nga ñu toroxal la ak ñu dikk sa kër nangu sa kër wala def la moo tax nga koy bàyyi bul ko bàyyi jarut bàyyi yow koy da nga koy bàyyi ngir ndigalal yàlla li ak fàttali gi la ko sëriñ bi fàttali waaye bu fekkee ne intérêt yi nga xam ne nar nga koo ñàkk wala toroxal gën la nar a toroxal moo tax nga bàyyi kon bàyyiwoo ko ci xol bàyyiwoo ko ci sa xol da nga ko bàyyi rek ci say intérêt nit ki nag war naa fàttaliku kañ la fiy jóge diggante fi ngay dunde ak fi ngay faatoo lu jege la nit ki war naa xalaat ba xam day xëy gontu day xëy dem fanaani wala day gontu fanaani wala day xëy lu mu a am ci àdduna ak lu mu a am perte na ko kon nit ñi nan delloo siwaat sunuy xel àdduna xel rek moo ko yore xel mu rafet te sell moo ko yore nan delloo si waat xam ne bànneex yi day jeex àdduna jarut àllaaxira tayeel jarut ñàkk bànneex jarut gàcce bi ci gën a doon dëgg nag mooy daray àdduna jarut daray àllaaxira dara dara dara ci àdduna jarut daray àllaaxira kon nanu seetluwaat sunu xel ñu jéem a bàyyi xel lii nu sëriñ bi tere ne benn intérêt nekku sunu sunu njariñ la rek njariñ loolu nag bëgg ñu jariñoo ko moom responsabilité am jeex na de ëllëg du nu taxaw moom mukk pencoo moom ak ci kanamu sëñ tubaa mu ne la nga ma digaloon ci ñii def naa ko lang ma waxoon ma aaye leen ko aaye naa ko la nga ma woowoon ne ma nan ko def def loo naa leen ko ñoom nag ñi ngi nii bu fekkee def nan ko xam nan bu fekkee defuñu ko xam nan boobaa sëñ tubaa bi nga xam ne dara du ko ump xam na lépp te jàpp naa ne ruslu na lool nga taxaw ci wetu sëñ tubaa mu xool na gis ne defaloo ko dara lam doon aaye ca dëkkam bu sell ba fa mu tëddoon nga xam ne ñaanoon yàlla mu may ko dëkk ba fa nga doon defee lii kon yàlla nu yàlla musal te yàlla gindinu te yàlla jubbanti suñuy xel ba tere yi nga xam ne lislaam da koy tere di ko tere ci dëkk sëñ tubaab yi yàlla na nanu ko yàlla dindiloo ci suñuy xol ak ci suñuy cër ba duñ ko mën a jëf ñu ngi ñaan yàlla xiirtal na wax dëgg yàlla fan yi nag gis nañ changement bu rëy ci dëkk bi xale yi jigéen ñu ci bari yaa ngi gis ñu yor ay muuraay ñii tamit wax te yàlla doon xeesal bàyyi kon góor ñi nanu jéem a ñoom it am am xel bañ a encouragé jigéen ñi ci wàllu rek euh, fexeel noo rafete baax na nangam loolu du mbir mi am ngeen ci responsabilité yu rëy nii suñ mun taxaa péncoo ak ñun ñu it ñu ne soxna yeeg suñu doom yi péncoo ak ñun te ëllëg dana wax ne yomal xiyaam jàppante ay buum yu baat dana fa bari ku ca bëgg a mucc nag mooy da ngay fexe ba layoog ñi nga war a layoo fii yonante bi salaa salaam daana faatu bintu tàndarma jaa ngi sama tool yaa loo bëgg waxal waaye nag jaamul yàlla loolu dimbalee mooy sama lay ci sëñ Muntaxa nag loolu lan dëkk sant yàlla na ko fi yàlla yàggal te wéral ko ba li mu yéene liggéeyal sëñ Bàmba lépp mu defe ko nam ko sol ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ki nga xam ne moo yoroon caméraman bi mooy Moussa Ka ki nga xam ne moo doon monteur bi di soxna Xadi Ñang soxna Aw Njaay moo doon réaliser émission bi ñu jox leen daje ci yeneen i jotaay asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu dinatu ilmin murtajan minnatun